wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci njiitul sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Fadal ak mbooleem koo xamante ni bokk nga ci daayira nooru daare ni Touba ca kanam ñi ngi ci nawet te màggaluk Touba mi ngi waaj a ñëw loolu moo tax Touba ca kanam fas yéene jógaat nag dëgmal ci mbeddi Touba yi nga xam ne foo fi jaar ay taataa lay doon ñu fas yéene taatooyo yëpp donte mënuñu ko tëliit ku fi jaar da mën a taxaw julli na ko sëñ Touba ñaane woon ca xasidaam ya màggaluk Touba ci at yi ñuy dox yëpp bu ci yàlla àndee ci biir nawet lay doon loolu moo sababoon daaw bi nawet bi jeex tombeek dëkk bi taawoon lool Touba ca kanam defoon ci liggéey yu am solo fexe woon ba mbedd yu bare bari mu lijjanti woon ko ba dem beeg dikk bi mën faa jàppandi ren bi nawet bi daataan jub si waxtaan nañ ci ay waxtaan yu yaatu jël expérience bi ñu amoon daaw dolli ci borom xam-xam yi ànd ak Touba ca kanam ingénier yeeg yooyu waxtaan ci ak autorité dëkk bi Touba kanam waajal ci matériel lu am solo waaye bi borom xam-xam yi demee ci terrain bi euh, dafiy gëstu jàngat dañoo gis ne li ñu waajal nii du doy ngir li ñu soxla dana ci tuuti lool lool ñu def ko lu gën a yaatu fexe ba murit yëpp képp ku am jumtuwaay bu mën a jàpp ci liggéey boobu ñu wala ci li nga xam ne moom la borom xam-xam yi ne lii moom lañ war am ngir tàmbalee ko liggéey boobu wala ngir duggee ko ci liggéey boobu li ci njëkk mooy latérite latérite xam nañ ko mooy xeer bu xonq boobu ndax am na ci diggante yoo xam ne yooyoo fay baax liñ ciy soxla nag toll na ci 17200 mètres cubes loolu boo xoolee day tolloo ko 860 camions 20 mètres cubes ñu soxla ci euh, ciment luy tolloog 206 tonnes ndax danañ defar ay radier dinañ defar ay ay lu ñuy wax ay fosse de relevage ak euh, yu ni mel. ñuy wax euh, gravier noir mooy xeer bu xeer bu ñuul bi danañ ci soxla luy tolloo 465 tonnes euh, béton fer à béton dinañ ci soxla luy tolloog 50 tonnes. danañ soxla luy tolloog 100 camions suuf yu 20 mètres cubes tuyau li ñuy wax tuyau évacuation diamètre 400 mooy tuyau yi jàllale ndox yi dañ ciy soxla luy tolloog 350 tuyaux. Euh, lu jëm ci ay pompe de relevage yu 120 mètres cubes danañ ci fàggu luy tolloog juróomi pompe euh, tiwo yi ñuy wooyee tiwo anaconda mooy tiwo yu gudd yooyu di lemu danañ ci soxla luy tollook juróomi junni euh, mètres 5000 mètres waaye bu dee ci jumtuwaay yu yu diis yi am na lu ñuy wax niveleuse machine niveleuse mooy machine yooyu nga xam ne moom mooy mooy mooy jàpp ci defaru tali yeeg di maasale ak yu ni dinañ soxla compacteur benn tamit dinañ ci soxla yeneen camion dinañ soxla lu mat bulldo ay bulldozer dinañ soxla luy tolloog 4 dinañ soxla luy tolloog euh, euh, ñaari pelle à chenille ak 10 pelle chargeur euh, lu mel ne tractopelle dina ci soxla 6 li ñuy wax caniveau danañ ci soxla 2100 mètres lunaire de caniveau 80 sur 80 yii mooy yi nga xam ne jàpp nañ ne boo ko Touba ca kanam amee lu baree bari ci jafe-jafe yi fi am fi mu ne ci taataa yi ak dëkk bi dem beeg dikk bi ni mu jafe danañ ko mën a lijjanti. mbooleem ku yaakaar Serigne tubaa kenn ku ci am jumtuwaay bu mu mën a doon. ci lii ñu soxla lii ñoo ngi la ci woo nga ñëw jàpp ci kon laaj gi fi muy tàmbalee mooy mbirum ab képp koo xam ne la nga yor jàpp nga ne sëñ tubaaku moom soo ca mën a jënd ci matériel benn bu mu mën a doon rek dikkal na defal leen ma ko ci Touba ca kanam dañ koy tàmbalee ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Moudou Moustapha Falilou sëriñ Makhtar moom sëriñ Moudou Moustapha Falilou sëriñ Abdoulahi Silla Ecotra tubaa ca kanam mi ngi koy tàllal loxo di ko ca woo Abdoulahad Ka directeur Touba matériaux di ci soñit Abdou Lahad Ka maire Touba ñu ngi woo alaaji Mbay Touré di woo alaaji Ndiasse Thiaw di woo alaaji Cheikh Lo Satracom moom Cheikh Abdou Lahad di ci woo alaaji Mandiaye Jong mi nga xamante ne bii lim am lépp sëñ Touba ko moom di ci woo regroupement Safoori yi benn Touba di woo président transporteur yi Touba ci njiitul Serigne Cheikh Mbacké Lo président oto yi vidange yi Touba ci njiitul Serigne Bara Dieye di ci woo itam alaaji Bara Seck ca Kaolack di jàmbaar Serigne Modou Gueye transporteur Diourbel Amadou Gaye transporteur Diourbel Cheikh Gaynde sëriñ Njang Saar ak sëriñ Baara ci auto-vidange yi sëriñ Daam Ñas sërif Ndiaye sëriñ Xabaan Saw mbakke sëriñ Bàcc Fall Touba sëriñ Sam Seen Touba sëriñ Laman Jiite ca Mbooro di woo nag ñi nga xam ne ñoo yore kambi suuf yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo wax ne bu ñu àggee ci liggéey ba nañ bàyyi benn yëpp ñu tibb fi ndax fu suuf mën a baaxe rek ñëw Touba moo ca gën loolu nag ñi ci jiital alaaji ma Fall Fall sëriñ Modou Fall sëriñ Njaga Jeng sëriñ Njaase Serigne Baye Fall jóob ñoom ñëpp ñu ngi leen cey woo ak keneen ko am kàmb ak foo ko mën a amee di tàllal loxo nag ñi nga xam ne suñ borom mën na leen gan tam wóor leen ne seeni buntu kër dañ koo pavé seeni biir kër dañ koo karle seeni mbedd ndox du fa taa defar nañ ko ba mu jekk ñooñee ñi ngi leen di woo ci mbedd di Touba tubaay ñi ngi ciy jiital njabootug alaaji Njuga Kebe ci njiitul Serigne Moustapha Kebe di ci woo alaaji Serigne Seck di ci woo itam alaaji Abdoulahi Dia di ci woo alaaji Mbaye Guèye alaaji Serigne di ci woo itam commerçant yi Touba yi ci njiitul alaaji Mouhamadou Diop et frère alaaji Moussa Diouf ñu ngi ko ciy woo di ci woo itam alaaji Ibou Dafe ak mbooleem tukkulóor yi Touba yi te xam ne ñoom sëñ Touba mooy seen mbokk di ci woo itam Serigne na Lo Dakar képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllu station di liggéey ci wàllu essence rawatina ñu dëkk Touba kenn ku ci nekk na nga ci mën a jàppe Serigne bi nee na ña ngi la ciy tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo am ciment baa ñoo am fer baa ñoo am béton dégg nañ li ñu woote ak niñ ko bëggee lu ci waay mën a joxe rek na nga daal di woote ci numéro téléphone yi ñuy bëgg a ñu ngi ciy soññ itam sëriñ Moustapha Fall Ndiagne ca Dakar ak rakkam sëriñ Pape Fall ak sëriñ Ismaïla Fall di ci soñ itam sëriñ Dame Niass di soññ mbooleem koo xamante ne bëgg nga lu baax kenn ku ci nekk sëriñ bi nee na nga cof ca sa magasin andi def ko ci liggéey bi ña gas raay ba njaareem ba Touba waruñu ñoo man ñin ñi nga xamante ne mbedd rek la ñuy defar defarloo kon na képp koo xam ne la Serigne Touba waxoon ne màggalu Touba suy dëgmal ka koy waajal ak ka ko waajalut duñ mën a yem ba addunay tukki ñun tàmbali na noo waajal màggalu Touba kon nag képp koo xamante ne bii ndamul sëñ Touba sa ndam la bëgguk sëñ Touba sa bëgg la ñi ngi lay woo fii lépp lu ci waay man def leen ko ci ci njëkkante ci acca murit te xam ne sëñ Touba ci acca murit rek la daan fay jumaa ji moo ko taxawal raay bi moo ko fi andi ñi ngi ci woo itam alaaji Masamba Dieng ak alaaji Mandiaye Guèye ak mbooleem koo xamante ni tudduñu saw tur waaye xamal nga sa bopp ne li nga yor sëñ Touba ko moom Touba ca kanam mi ngi lay taalal loxo man de commencé woon naag Touba mm-hmm. maa ngi sant bu wér ba may ñëw ci ñoom benn machine rek la ma yàlla dénkoon ma jël ko jaayante boole sama bopp ci Touba ji kanam di ci liggéeyal Serigne Touba mm-hmm. tey ji maa ngi ci juróom-ñett ak camion lépp lu ma am nag bu Touba ca kanam wootee dinaa ko indi sëfoor euh, si nga xamante ne bii ne ñoom laa jiite ñu féete ci sama ginnaaw maa ngi leen di woo ci liggéey bu Touba yi nga xam ne te mu ngi jëm ci wàllu defar mbedd yi te ñun suñ côté biñ ci féete mi wàllu sëkk ma di ci woo ñëpp di ci sàkku teewaayu ñëpp képp koo xamante ne bii ne yaa ngi ci benn rek di ci xëyee ko gont maa ngi la ci woo. man maa jiite transporteur yi kon nag maa ngi woo bépp transporteur boo xam ne yaa ngi yëngu ci gros porteur ñu ngi lay woo ci liggéey Touba bii nuy woote te te maa ngi sàkkoot ci bépp transporteur bu fi nekk warunoo des gannaaw ci liggéey tubaab bi ci kanam kon nag maa ngi ci woo transporteur bépp ku yor ci ku yëngu ci camion rek ñu ngi la ci woo. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum autovidage yi te ma nekk seen kanam jiite leen maa ngi leen woo ci liggéey bi nga xam ne waa Touba ci kanam ñi ngi koy woote pour nañ wooñu ci ñëw leen ñu ànd liggéeyal Serigne Touba jariñu maa ngi ci woo képp koo xam ne yaa ngi ci diggante Mbàkke ak Touba di yëngu ci wàllum autovidage ñoo ngi la cay woo di ci woo Ibou Sow mi nga xam ne moo jiite jiite association vidaceur du Sénégal bépp maa ngi ko ciy woo di ci woo la de ONAS di ci woo képp koo xam ne nii rek yaa ngi yëngu ci secteurub vidage euh, di amaan mbégte mu rëy di wootewaat ndax mu du wàcc te du sonn dim kon yow fas yéene ndax fañ jëm ki nga xam ne moom la ñu tuddoo képp ko xam yaa ngi tuddoo moom war a toog sax laxasaay ndax ma jóge ba tey mi takk laxasaayam gi ngir lu xet li bindee fi xet li doomu aadama yi kon bi ñu ko wisee war nañoo góorgóorlu nekk ci li nga xam moom la bëggoon tey sori la mu ñu tere woon. ak bëggam dafa mel dëkk bi dar la gën ko ci ëpp muy Touba ndax Touba ci boobu ma njëkk bëgg sëriñ bi sëriñ bi bëgg Touba euh, muy lu ko sama borom kon bu ñu bàyyee ci kaw suuf si ñu nekkee fi war nañoo góorgóorlu kenn ku ci sa kéemtalaay kattan pour def ci la ak lu mënut nañ ko xam ci tàmbali bu njëkk rek Touba fu waay war taxaw rek war nga mën taxaw ndax bayit yooyu ñu waxoon léegi rek waccal bu yuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakun sajida waaye amaana fi nga xam ne maanaam wajë bu yuti ku la ma wa bi basir ma yakun sajida kon maa ngi woo ñëpp ci loolu tàmbali sama jëm bopp ak ñu bokk sëñ bi ñëpp rek ak fu waay nekk tàmbali sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy mooy mooy borom yi te mooy jëwriñ sëñ Tuubaa sëñ Sidi mi ñu da nga jum bu dëkk sëñ Tuubaa yëpp rek ak bu dëkk ñu liggéey ba dëkk bi ñu ko borom bëggee mel na ni te ñu teg suñu jom di ci góorgóorlu suñ nee suñu tubaab la ñuy liggéey suñu bopp la ñuy liggéeyal ndax suñu bopp la ñuy ñoo ko a gor ñu def ko ay tëri ñaari ñaari yoon yeneen yeneen mbedd ndax yàlla moo jëxul dara la nekk Dubai nekk France nekk Amérique nekk fépp nekk Arabie Saoudite jox ndax doomu aadama rek ko moom kon bu ñu jëmal suñu bopp dara doomu aadama day rëbët te yàq itam ci boppam foo ndab loo ko tàll mu duyal la ko te Sëñ Tuubaa dama ba tàllal yàlla ndabam yàlla di woo ndab loo ndab loola ci boppam kon ñun li amu ci suñu suñu suñu suñu yaafu waaye Sëñ Tuubaa loolu ñaan yàlla ñaan na ko yàlla kon ñuy ñaan ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ci te góorgóorlu ci te tàmbali te bañ a te bañ a te bañ a xaar kenn nag euh, liggéey Tuubaa moom nuñ nuñ bàyyi xel ne kenn nuñ ko defal ñoo ko defal suñu bopp waaye may soññi sama bokk Baay Faal yi ndax ñoom kat ñooy ñagul sëriñ bi kon maa ngi tàmbali ci suñu sax jëm mi nga xam ne mooy euh, xalifa général Baay Faal waaye di ko jaar ci jëwriñam yi nga xam ne ñoo fi nekkal ci ay doomam muy sëñ Fallilou Fall mu sëñ Modou Aminta ak sëñ Moustapha Fall Mbar ñoom ñi nga xam ne ñoom naka jekk ñi liggéey bi ak njaboot Cheikh Ibra gépp bu ñu kër Cheikh Ibra fukki bu ñu kër Cheikh Ibra benn yëpp ñoom kenn ku ne gis nañ seen taxawaay ci yoonu sëñ Touba gis nañ seen taxawaay Touba kon ñoom war nañu ci liggéey bi liggéey bii liggéey bi daal bu ñu ko tàppee bu ñu na na foo foo moo jaay ci waa rek war nga mën a laal bësang bu ñëwee yu mag yi rek waaye dañuy mbedd yi mooy man def war nga a bësang jaam fa yàlla julli fa togg fa lekk fa def nga bëgg rek te loolu bu ñu ko bu ñu ko songee dañ ko daane ndax kon maa maa ngi soññ sama bopp di ñëpp rek bu kenn des dañu euh, góorgóorlu baax rek te xam ne kuy liggéey Sëriñ Tuubaa boo defee loo man mu defal loo mënut boo defee loo mën mu defal loo li may li ci gën a gaaw na ci liggéey bi laa leen wax na kenn kon tàmm sa bunt kër na set sëkku bu ko ñëpp defee da baax waaw alal alal lañ laaj oto doole xaalis na na kenn ko indi ñu jëfoo ko suñu tuwaa waaye kenn ko tàmbali sa bundu kër sama bundu la ko wër bu bu mu taa keneen ko bundu kër la mu taa te ñu dindi bant yi nekk mbedd yi pënu yi nekk ci mbedd yi nañ ko dindi xool-xool yooyu ku gas ab ab rigol mu génn ci mbedd yi nga toj ci ko mbedd waaye am na nag la ko jox rek ñëwal ku suñ jox la ko toogal ñoo ne Sëriñ Tuubaa bëgg dañuy am ko ne jàpp na Sëriñ Tuubaa te wóor na lii képp koo xam ne jëf ko moom te loolu waaye nañ ko tàmbalee suñu bopp kenn ko fa nekk nga diine ko mu si wicc mbedd mu sës ci yow boo ko mënee boo dee nekk koo doon camion su nga jënd ko ci tasaare ko fa loolu bu ñëpp defee léegi tey yëfi dëkk bi lool su ma fekkoon maa ko mën sama bopp tey ji man maa ko defee lépp sama bopp su ma yàlla mayoon doole doole yi xam moom la mayoon moom la mayoon ñëpp doole ci àdduna léegi bil gin mi yor bil gin mi ñoom moo ëpp yàlla ci àdduna su ma ko joxoon rek suñu tuwaa tuwaa tuwaa mbedd urus lay doon dëkk bépp kenn dootu jënd dara kenn dootu kenn dootu joxe dépense kenn dootu fay ndox kenn du fay courant kenn du def dara nañ génnee lekk ci armoire yi bala ñu dugg ci baar armel yi nañ génne lekk armoire yi bala ñu dugg ci armel yi lu nekk ci kaw suuf suñu tuwaa si liggéeyu yàlla dara ba dugg ci biir suuf da nga am gàcc te ku dugg suuf da nga yaakaar suñu tuwaa xetal la fa te ko ko ku koo xam ne defoo la yàlla dara ci kaw suufam si bu dugg ci si nañ gër gër góorlu suuf suwaay si bu ñu duggee ci biiram mu seere ñu ñu xam ne defa nañ ci nangam ndax mu rek suñu bëggoon kon maa ngi yemal seen kàddu foofu tey soñ ñëpp na ñëpp ñëw boobuñu kenn yaa àll bari yaa àll bari mu jiw lu bari bari saxay ñu ngi ciy soññi eh, Cheikh Amar mu Serigne Saliou ak mbooleem koo xam ne yaa ngi nekk ci TSE di fa liggéey di ci soññi tam bu baax Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ak taxawaayam ci dëkk bi di ci soññi sëriñ Abdoulahi Tage mu sëriñ Salihu ak soxna Momi Kebe soxnaam di ci soññi mbooleem koo xamante ni bii rek liggéeyal sëriñ Touba ñor na la ci dëkk bi. kon mbokk yi bis baa ngi noonu juróom-ñetti fan lay doon ci weeru août di bis bi nga xam ne ci lañ fas yéene jaayante liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba maase la mbedd yëpp ba ab taataa duutu fi am fu ñuy teggi duutu fi ne ni ko sëriñ bi waxee nag ñi nga xam ne ñooy gas ay foos ci mbedd mi di fa samp ay pono di def ay doj wala di fa sa xeer di ko fa bàyyi teg tabax ba kenn xamut kañ lay àgg sëriñ bi nee nañ ko dimbale ci loolu ndax mbedd yi kat bu ñu ko dee def ay 100 mètres ak i 60 ak i 30 bëgg yoon wu yaatu ba ku jëm si ci jumaa ji man fay agsi te ku ne xam ne ne màggalu tubaa quartier bu nekk la nit di bàyyi ko te ñëpp bala ñoo am jàmm dañoo ñëw ci eh, jumaa ji kon nag buñ sañoon fu waay mën a jógee boo jëm see ci jumaa ji dara du la dog te loolu mooy yéeney Tuubaa ca kanam. moom lu mu séntu woon ci yéen rek gis naa lu ñu bëgg ci dëkk bi da ngeen ko da ngeen toog bu mën koo defaral seen bopp dëkk bi yëpp man foofu laa ko àggal ma keroog bañ bañ ba ma leen gisee ba keroog bañ njëkkee wax rek foofu laa ko yóbbu woon kon dara duma bett ci lii ngeen def waaye nag teewul nag rëy na ci man ndax man yitte moom yitte moom boo ko yëmal wala dara te yitte rek la yitte man yëmalu ma ko daal te yitte rek la lu sotti rek gannaaw gannaaw gannaaw dogul sa borom yitte ko sottal yitte ji nag ma gis ci yéen moom wax dëgg yàlla yitte ko mënut a kon ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.